bi wooyoon mu ne bëgg ndawal mhm. bu la taxee fekk ñay bu taxaw mhm. nga di ko galgal mu ne sa tànkay dam waaw mais am na yoo xam ne bëgg député wala bëgg jëlee li fi nekk bu la taxee nga coaliser ak ñoom mhm. no dangay yàq sa crédibilité waaw man jàpp naa ne erreur politique la yenn xeeti coalition yi nii ñu ko defee te dinañ ci am ay problème hmm. mais mais imam bu ñu doon wax parti politique wala coalition ñu bokk mm-hmm. idéologie la. surtout ñu bokk courant. ah ñu bokk gis-gis. Mm-hmm. mais dafa mel ni léegi nit ñi. noo man kay am na ko ma dégg mu tuddee <laughs> coalition ñamu mbaam <laughs> mais mais dina ko xaw a nuru quand même parce que njaxas mi doo xam kenn ku nekk sax léegi yow vision bi nga yor lan la maanaam kenn ku ci nekk daal. Mm-hmm. àndal ak ku la neex noo man jàpp naa politique loolu. parce que loolu fi ngeen di mujj mooy bés bu ngeen wutee ba am ba pare. kenn ku ne day dem yoonam. Mhm. te su boobaa objectif li ngeen doon wut. dootu leen wax parce que da ngeen bëggoon am booloo pour am fa doole mais da ngeen di dem ba yegg ngeen tàqali ko wat waaw mooy li daloon yeewi ak wallu tout à fait seen booloo ba ñorul woon dañu booloo woon parce que circonstance bi fii Macky Sall nañ ko xañ majorité mhm. mais gis nga bi ñu booloowee ba dem dañoo yegg xaraat ci digg bi wallu jaar ne yeewi jaar ne le lañ bëggoon assemblée parce mënatuñ ko woon am après mhm. loolu mooy conséquence su di coaliser koo xam ne bokku leen pas-pas ci politique bokk leen gisiin bokku leen vision bokku leen sax programme boo moytuwul. déedéet waaw moo tax loolu moom yàkkamti koo def boo demee ba vote ba nit ñi duñ respecté vote boobu. Mhm. parce que gis nga sénégalais yi ñu ngi ñor léegi. waaw ah, trop. toppatuñu kenn ci nii rek aveuglement non. Mhm. dañuy xool ba xam yow acte yi ngay teg leer na bu leerul dañ la fay bàyyi. waaw ah, waaw dem voté ñoom li leer ci seen bopp ñu def ko te man jàpp naa ne coalition yu bëri mbetteel googu. moo leen nara a daal. Mhm. mooy nar nañoo toog ba ngoon ñu naan lii lan la parce que ay ponk la boole mais est-ce que ponk yooyu li ñu def dal na xelu militant yi. fooguma ko. non léegi léegi militants yi kenn mënatu leen. kenn mënatu leen yóbbu. jaaral fi rek ñu jaar fa. <laughs> parce que léegi dañoo xam li xew. mu mhm. njëkk politiciens yi dañ ñu rawee woon loo xam ne dañuy xam loo xamul. yow xamoon dara ci réew mi su ko defee nga ne ah boroom xam-xam lu mu wax mais tey da ngay nekk au diapason. Mhm. xam li fi jaar xam li fi xew xam ki muy àndal. jël position. tout à fait ngeen bokk position waa ji bu wàccee da nga naan non kii man ak li ma daj kii lim ko won kii lim ko def mu jékki saay def nii. Mhm. man duma ma dem. loolu foofu la sénégalais yi. te loolu sax mu d'ailleurs moo dal PDS. ah ba barki démb rek euh, ci ndaw ñi ki nga xam ne mooy secretaire général UJTL dafa ah, démissionné gis nga waaw maa ngi gis sax ndeysaan maire Woré Sarr saar ko ko xam ci wàddu nu mu mel. waaw moom de moom moom moom moom foo tuddaan jigéen ñi PDS. kooku génn PDS moom mooy jeex na. Mhm. te loolu dara warulu ko lu dul. ay erreurs yu coalition. Mhm. PDS nag wax dëgg yàlla erreur yi mu def dafa bari. trop depuis deux mille dix huit deux mille dix neuf ba léegi da ko def. waaw deux mille dix neuf la njëkk a raté occasion. Mhm. ka coaliser ak euh, opposition bi malheureusement mu. nëb mu rasu. mu demaat deux mille vingt deux ci législative yi mu am fa ay député xaw a dekkiwaat. waaw bañ ne PDS léegi amaan nay député am na maire mais gis nga deux mille vingt quatre après élection yi mi ngi nii di coaliser ak président Macky Sall loolu loolu Sénégalais yi mënuñ ko nangu. Sénégalais yi mënuñoo fase kii même pas 6 mois nga ñëw bëgg a ànd ak moom ne leen jëlaat leen ko duñ ko jël yéen ñaar la ñuy boole sanctionné leen. Mhm. man nag dama jàpp ne li Ablaye Wade nekk mag moo ko waral. waaw pour man Ablaye Wade désité du. yëgatul dara. non non yëgatul. Mhm. parce que Ablaye Wade au moins man gëm naa ne am na 100 temps kooku mënatoo ko am ba pare di mën a contrôler. géopolitique bi fi mu toll. Mhm. malheureusement te Abdoulaye Wade nag bu dee dëgg rek la ñuy wax jurul doomam bu dee dëgg rek la Karim moom. waaw Karim julul dara dara dara ci Abdoulaye Wade julul. dara <laughs> mais mais imaam xam nga imaam affaire Karim li <laughs> ma ci reetaan loo. imaam mooy Karim ba mu nekkee Qatar di wootee ñu ne <laughs> waa APR yi. di wax waa PDS yi. ne candidat WhatsApp ngeen am. waaw tey nag léegi waa APR ñoo am candidat WhatsApp. ah yàlla moo garaaw yàllaa leen fay bor boobu nag ndeysaan moo tax looy leble rek xam ko. waaw ñoo fexe woon ba Karim Wade des fële di opposé WhatsApp tey Macky Sall mooy opposé. WhatsApp moom laay gis muy woote. di appel vidéo yàlla waaw. moo tax daal lu di leble rek na ko bàyyi xel. Mhm. waaw moo tax euh, opposition WhatsApp nag wax fa dëgg yàlla amul efficacité. <laughs> loolu <laughs> expérience bi jaar na fi opposé moom ku ko bëgg non da ngay wàcc ci terrain. mais imam noo jàngatee tey électeur u Sénégal sénégalais bi ci boppam. bii dem di wote ji. Mhm. fi mu toll. ak politiciens yi dafa ñor man jàpp naa ne politiciens yi ba léegi xamaguñ fi sénégalais yi toll ci ñor. Mhm. maanaam sénégalais boo xam ne nii Samba tey buy dem di voté ji ay enjeu lay calculer di calculer naan bu ëllëgee CFA bi nii pétrole bi nii gaz bi loolu mësul woon nekk ci bopp kuy voté. kuy voté lu fa daan nekk. Ablaye Wade laay voteel. Mhm. Abdou Diouf laay voteel. Mhm. sa yoon boo ko voteelee ba pare vision bi moo am say yoon nekku ci mais tey dañ naan la. kan moo ñu mën a jox indépendance. waaw kan moo mën a fexe ñu moom suñu bopp. Mhm. kan moo mën a fexe ba tubaab bi loxo bii mu ñu naj nii mu bàyyi ko. effectivement kan moo mën a fexe suñu doom yi ñu rayoon ak suñu alal jii ñuy sàcc kan moo ñu ko mën a sàmmal ba mu yegg si. Mhm. moo tax Sénégal yi du ñu juum ci vote parce que léegi bu ñuy fal nit dañu xool ku wóor. bañ ko ba léegi dañ naan sax diw loxoom set na. waaw man de loolu laa seetlu. diw loxoom set na. ba ci sax nomination yi ñuy dañuy xool ki ñuy nommé mooy kan. waaw nga xam ne électeurs yi sëñ bi léegi macha allah yéeg nañu yéeg goo xam ne bu ko politiciens yi xamee danañ fexe leeral bépp acte bu ñuy def. Mhm. danañ ko séddoog askan wi ci digg bi. Mhm. wane ne nii laa mhm. mais ku ciy làqatu rek defe na mën nga def say kii nii def say tiset teg say dil gars dinañ lekk sa xaalis te bu voté jotee kenn du la voté. <laughs> parce que milliardaires yi nekkoon ci barab yi di opposé ñëpp amul fu ñu gañee. déedéet montant am nañu xaalis déedéet déedéet amul ci kenn. kenn ci ñoom gañewul loolu maturité la pour moi. waaw alors may nuyu Abdou Lahat Lo. Fatou Kiné Ndiaye depuis Nanterre ak Nabou sekk ah di nuyu l'homme fort ak euh, Khadija Seck ñoom ñëpp ñuy suivre li nga xam ne moom mooy euh, émission bi ma fàtte ne yéen a ngi ci seen suñu euh, chaîne vingt 24 ñuy dalal imaam Babacar Sylla. Dóor waar bu fekkee ne document bi ma la envoyé woon jàppandi na ah. Euh, ma leeral parce que xam nga nag. Mhm. boo nekkee journaliste. waaw dafa am yoo xam ne bu ñu buggee jaxase xeli nit ñi. waaw war nga koo leeral. boo koy leeral nag da nga koy leeral après peuple bi ñooy décider. wallaay dëgg la parce que dama dégg démb benn leader politique. waaw mu toog mu ne mhm. référentiel bi ñu génne. Mhm. huit pôles euh, régionaux yi ñu wax. waaw moom projet bi mu tëggoon la ci deux mille vingt nee na kon gars yi dañoo coppati ci. ay projet léegi mu bëgg fàttali mbokk ñi ñuy seetaan. Mhm. ne en deux mille dix neuf. Mhm. programme bi coalition Sonko tëggoon. Mhm. ñu koy wax jot na. jot na waaw coalition jot na. coalition jot na. ñu koy fàttali. pôles régionaux yi ñu doon wax démb. mu ngi woon ci seen programme. est-ce que 2019. 2019 moom mu ne 2023. mi moom nee programme bi mu doon tëgg 2023. <laughs> waaw ci la dugaloon pôles régionaux yi. nee na gars yi référentiel bi ñu génn démb dañ koo sàccee ci programme am. jërëjëf léegi nag mu bëgg a xamal mbokk internet yi. ak mhm. ñuy suivre. Mhm. que bu ngeen demee ci programme mu jot na. Mhm. bu Ousmane Sonko mille dix neuf. ci page ci sixième paragraphe bi. macha di nga fa fekk. li ñuy wax pôles régionaux yi. crée des pôles régionaux pour de collectivités territoriales. macha allah loolu deux mille dix neuf la woon. macha allah. lii mooy rôle journaliste. parce que dëkk bi dafay baax. lii mooy rôle journaliste. ñuy leeral nit ñi. Mhm. ñuy xam. sa dëgg-dëgg. boo ko defee nag ñu ne journaliste. diw la journaliste mais ñun bu ñu demee ba mënatuñu leeral waa ñun bu ñu demee ba mënatuñu leeral. Ah. waaw nañ jël micro yi dugal suñu saak <laughs> dem ñu. yàlla toog ni ñëpp. parce que aussi. Mhm. kiy wax ci penc mi lay wax. ah ay nit di ko déglu. sa dëgg-dëgg. bu waxee loo xam ne nag. du noonu du noonu.